du bâtiment waaw OBS nag mu ngi euh, ba base ngi mhm. Ndondol waaw maa ngi ak euh, directeur bi mooy Abdoulaye Ndour mhm. jaruta euh, présenté parce que ñëpp a ko xam mhm. Ndondol waaw muy lu am solo loo xam ne tey day yëngu ci wàllu bâtiment dégg fi nga xam ne moom mooy Ndondol donc avant tout war a ànd ak doomu Ndondol yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre saa su ne ñu war a ànd ak ñoom ngir mën a jëmal ndondol ci kanam mais tey bés bile di bésu 18 safar ñu gis fi ay ndab lu bëri ci loolee bés bee ko waral. macha allah monsieur Dione waaw comme ni nga ko waxee woon rek. OBS tey dafa jóg. jëlal liggéeyal Serigne Serigne Touba. liggéeyal Serigne Touba si à l'occasion ci ci safar bi ñu nekk si weeru safar. waaw ku dégg weeru safar nag sa xel dem ci Serigne. Touba ma borom Touba mo mo doon liggey te mo mo diglé né safar bu jibsee rek mhm. waaw lepp luy berné mhm. waaw ngeen commencé berné jaamu yalla bo ba biñu euh ba 18 safar bu muy jot waaw 18 safar mooy Touba dem Touba waaye tey mhm. li nga xam def ngeen ko tey ana lan lan mooy li nga xam ne ngeen def ci bes bi ngir euh, jaam ak population bi ak fépp nit mën a nekk ci àdduna bi mën a xam ne euh, donc am na benn entreprise boo xam ne day yëngu ci wàllu bâtiment def ndondol mais day ànd ak ñëpp ngir def safar ñu mën ko yokkal ñaar. macha allah waaw comme ni ma la ko waxee woon sànq rek lii yëpp ku gis teraanga lii yëpp nga xam ne lii nii c'est pas une mince affaire. Mhm. waaw ndondol presque moom dafa jóg. pour pour jëmale ndondol si kanam ku jëmale ndondol si kanam nag da ngay basé déjà sur le social le social mooy lan par exemple nga fexe ba ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal ñu kontaan si yow te lii lii lii dëkkoo firndeel lii dëkkoo firndeel ñëpp kontaan si yow rawatina ki waral presque weeru safar boo weeru safar bu jotee rek seen suñu xel yëpp day dem ci liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba mu ngi basé aussi ay berne comme yi teraanga yi xeetu teraanga yi yëpp nga xamante ne ñëpp ñu bëri ñoo si jàpp c'est pas Ablaye kese moom moo si liggéey ak Ablaye ak ay partenaire am partenaires yi nag waaw mooy mooy membre de la famille les villageois yi nga xamante ne ñoom la Ablaye di accompagner

képp ki nga xamante ni yow soxla nga lépp aju si bâtiment waaw dangay xam ne sa xel dafa war a dem si OB OBS esprit business esprit building ser service c'est-à-dire mu accompagne la si sa bâtiment sa architecture lépp luy fondement day dëgër macha allah fondement boo xamante ni si expérience la aju waaw parce que euh, Euh, curiosité ak scientifisme la la anam waaw ñëw loolu ñëpp a ko war xam par exemple da ngay gis bâtiment bo xamantene dañ ko tabax ko bu jeexal pareegul sax nga commencé gis ay eh, défaillance yi di génn parce que euh, defaruñ ko bu baax wa base bi dafa manqué mais OBS day taxaw ci lepp li nga xamantene ne moy architecture bi waaw finition pala lépp loo leen bëgg waaw mu ngi euh, euh, loolu muy école yu leer mais nag lu mën da ñàkk mooy mhm. euh, ki nga xam ne mooy waral mbir yi parce que olof Ndiaye nee na kuy xalam di ci jaayu. da mhm. ñàkk mu am kado yoo xam ne de koy denk ñi nga xam ne ñooy clients yi parce que moom mooy affronté ak ñoom. donc yooyu nag ñu bàyyi ko. moom Ndour mu dal di indi ay ay ay ay ay kiyam.